Assalamualaikum mbokk yi ñu ngi leen nuyu di ziar bu baaxa baax di wax ngeen wi di abonné te di activer cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu duggal euh, di ngeen bokku ci ñu koy leen di like di commenter ak partager loolu ngeen ñu mëna jappalé bu baaxa baax ñu ñëw ci suñu international sénégalais di pap Matar sar euh, tay ji timit lën équipe di Tottenham daf doon football 9e journée bu prime League Angleterre donc di digënté mom ak Fulham actuellement ñuy defee vidéo bi 2-0 le Tottenham Money donc mu am solo international sénégalais euh, titulaire la ci donc mais malheureusement la centième minute gis nañ mu génn euh, ci blessure donc xamaguñ euh, blessure bi la après mars. mais espérons que ni du blessure bu grave ak forme exceptionnelle exceptionnelle ak enseignement match yi mu def depuis début saison euh, je pense que ne yàlla bu blessé et parce que ku ne xam ne blessure ak euh, euh, jour donc je pense mu bañ a blessure bu grave. donc euh, en tout cas tey def na match bi mu waroon def bu soixantième minute donc depuis début saison bi comme ni mu ko waroon defee Tottenham comme équipe am mi ngi ci forme donc moo